Mangi encore une fois rafetlu le fait que euh, pour Goulet waxuma Goulet mais en tout cas gañ Euh, fi àddina euh, Manko, maa ngi ko euh, fêté euh, benn fête religieuse rawatina bu mel ni tabaski korité ñu fêtandeer ko dans l'unité dans dans dans la communauté internationale tout entière je pense que le Goulet la laa nañu souligner ko mais aussi rafetlu ko donc bu loolu weesoo de naa bu baax baax sermon imam bi eh, imam Ismaïla Aïda si sermon boo xam ne def na ko sermon bi yëpp daanaka dafa tourner autour euh, de l'actualité, actualité actualité coronavirus euh, si jafe-jafe yoo xam le monde bi yëpp mais aussi wax na lu si islam wax euh, parce que si loi islamique si charia bi dañ ne boo ngeen di julli da ngeen da ngeen di nek mbag ak mbagg mais actualité bi tax ba ñu réadapter suñu ay comportement surtout réadapter pratique islamique de telle sorte que gens, euh, si un euh, dictateur, mais aussi si c'est autorité sanitaire de euh, permettre sanitaire, ñii ñi ñu gën nous pour que ñu puissions nous julli donc loolu expliquer que na ko si Sharia, charia si de lan la mais aussi profiter de nous continuer de respecter mesures barrières parce que faire baa euh, dafay gën di law wàññeekuwul donc euh, moi yoo xam ne moom lañ dicté woon vraiment imam la ñaax pour que ñu continuer di ko def di pratiquer dem na bu sax euh, contexte tey bi nee def na ay ay perspective parce que n'est na bu lii yëpp c'est sûr que comportement yi si monde bi yëpp changé changer donc dafay changer rapport humain ça dafay changer relation humaine mais aussi de changer lu bëri bëri